rapidement balaa. référendum ngir askan bi la nga xam ne moo fay euh, jóge mu def ko moomeelu boppam. mu doon loo xam ni itam bés bu ko askan bi jëlee def ko moomeelu boppam bañ taxawal ko. Mhm. xelu kenn du xalaat ëllëg mu am lu ci lu mu ci dindi lu mel ni tal fu Euh, Ludovic euh, Rosner référendum boobu bu dee ñu ciy dem aussi euh, laaj na yaakaar na ay yeneen ponk yoo doon souligné ci wàllu yoon ak justice ak yooyu nga xam dañ koy dëxan ci biir ba mu gën a nekk lu dëgër wala lu am garanti. waaw wax bi benn la. yéen a ko te yoon bi benn pexe la wax muy référendum dañ ko doxal waaye bu mu yéex. la gaaw ñu paree ci loolu jublu ci léegi problème mu Sénégal yi. Mm-hmm. loolu daal dañu. maa ngi leen di gërëm di leen sant di rafetlu seen i xalaat di gërëm bu baax Oustaz Assane Diouf mi nga xam ne moo réalisé émission bi Cheikh Tidiane Ndiaye maam Sidi Diop euh, Ama Gueye ñi nga xamante ñoo nekkoon ca régie ba maa ngi leen di gërëm di leen sant di jox askan wi daje euh, ci beneen thème alxames incha allah beneen thème mu diine ak jamono maa ngi gërëm bu baax ñi nga xamante ñu ngi doon teewlu suñu émission bi jàmm ak jàmm. nag ñu ngi dalal ñooy ahlu kunti yu di waa Njaasaan laay walhamdulilah yàlla sant nañ yàlla yow yaa fi amul dara aaxiro bu la bu jeexee bur yàlla moo fi des aayiru bur yàlla yow rek yaa feet boo weddee li وبتسعى